Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chers amis auditeurs, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala et avec l'aide de notre sœur Fatou Kinegei, nous sommes ensemble en ce jour béni pour poursuivre la réflexion entamée lors de notre séance précédente où nous avons vu comment la religion responsabiliser l'homme dans la gestion du monde ici-bas et comment Dieu subhanahu wa ta'ala a promis de faire le compte de cette khilafa en un jour, une période, dans un monde d'une durée de cinquante mille ans, appelé jour du jugement. au bien jour dernier mbokk yi gannaaw bu ñu delloo sant yàlla subhaanahu wa ñu fas yéene ànd ci bis bu tedd bi ci ndimbali sunu mbokk soxna Fatou Kiné Gueye mbokk yi jataay bi wees gisoon nañu lan mooy diine ñu gisoon ni nga xamee ni diine noonu la joxe nit responsabilité yàlla ni ko àdduna bi teg naa ko ci say yoxo ngir nga saytu ko doxal ko bon lépp li ñuy def ci àdduna mooy saytu ak doxal àdduna doxalin bi gën a rafet bu ko defee ëllëg ci benn bis boo xam ne juróom fukki junni at lay doon alquran tudde ko yow mu diin mooy bis penc ñu ñëw yàlla régler nag ni ñu doxale àdduna ak ni ñu ko tëyee ci diir si nga xam ni kenn ku nekk ci ñun moom la fiy def amis auditeurs nous allons aujourd'hui préciser le sens à donner à la notion d'autorité religieuse cette précision doit nous permettre de savoir clairement le sens et le statut du marabout si vous voulez nous dirons du leader religieux ou mbokk yi ñu fas yéene ànd tey taxaw ci kilifteefu diine mooy lan bu leeree lan mooy kilifteefu diine rek dañ ci mën a xamee lan mooy taxawaay bi sëriñ war a taxaw lan mooy taxawaay bi nga xam ni kenn koo xam ni sa ndombo ci diine la takkoo lan moo war a nekk sa taxawaay ak lan mooy sa liggéey sa diggante ak askan wi nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu war wërsëgal nu boole nu ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yal na ko defal ya azim allah ya habib القرآن هاديا لله يا رسول En islam, amis auditeurs, le fondement de l'autorité n'est rien d'autre que la foi. La foi signifie le savoir qu'on suit, qu'on applique dans toutes nos activités et dans tous les instants de notre vie. Ainsi donc, pour être un guide religieux, il faut obligatoirement avoir le savoir, connaître aussi bien la religion en tant que culte que la religion en tant que système de vie mbokk yi bu fekkee lislaam la bu ñu nee kilifteef kilifteef ma ngi lalu ci ngëm ngëm ci lislaam mooy xam-xam boo xam ni dañu koy topp di ko jëfe ci lu ne ak ci saa ne bu ko defee ngir kenn mën a am kilifteef ci diine faw mu am xam-xam loolu mooy li jiitu xam diine ji ci boppam waaye mu xamitam diine ji naka la organiser dundu àdduna bi yéesu su rekk kilifteef manqué na le verset 124 de la sourate la vache dit à ce propos ceci rappelle-toi quand ton Seigneur éprouva Abraham par certains commandements et que ce dernier les exécuta toutes sur ce le Seigneur lui dit je vais faire de toi un guide pour les hommes Abraham lui demanda fait aussi de ma descendance des guides. Allah subhanahu wa lui répondit, mais ma promesse n'englobera point les injustes. De ce verset, nous retenons que l'autorité religieuse n'est pas héréditaire, mais basée sur le commandement qu'on exécute sans aucune réserve. mbokk boo demee nga jàngat suratul baqara dangay fekk yàlla di leeral lan kan moo mën a nekk kilifa ci diine ji mu ne isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun mu ne fàttalikul ba yàlla subhanahu wa taala nattoo ibrahim ci ay ndénkaane ay santaane Ibrahima matal lépp bon nga ni examen nañu ko mu jàll ci examen bi qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman yàlla ni ko léegi nag comme jàll nga examen bi xam nga li ñu la doon laaj jëfe nga ko ba mu mat dama lay jël def la nga nekk yilimaan nga nekk kilifa nga nekk njiit ñeel nit qaal ibrahima ne ko wa min durriyati lii nga ma may defal muy jàll ci sama njaboot qaal yàlla tontu ni ko laa yanaalu ahdiya zalimin ibrahima sama maye gi ëmbul mukk ñi nga xam ne ay tooñkat lañ bon laaye jii di téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci suratul baqara mu ngi nuy jàngal ni kilifteefu diine du lu ñuy doon kilifteefu diine xam-xam la bu ñuy jëfe di gindiku di ginde ainsi puisqu'être le fils d'un tel ne peut faire de personne une autorité religieuse un guide comme le dit ce verset de la sourate la vache Comment donc le devient-on? Peut-on se demander. Et à cette question, le verset 79 de la sourate La famille d'Imran répond, Dieu dit, vous serez des guides grâce à ce que vous enseignez du livre et grâce à ce que vous en apprenez. C'est ainsi seulement, amis auditeurs, en suivant sincèrement l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En choisissant soi-même d'assumer les responsabilités, de guider, c'est-à-dire de former les hommes, de les orienter dans tous les domaines du savoir religieux et dans tous les domaines du savoir mondain, qu'un individu peut acquérir le titre d'autorité religieuse. mbokk yu tedd yi ànd ak nun ci bis bu tëdd bii fii ci rajo Sénégal international gis nañ ni bon nekk doomu diw walla doomu diw mënula def kenn nga nekk kilifa ci diine ji noona la laaye ji leeral bon li ñuy laaj mooy bon nan la nit mën a def ba nekk kilifa ci diine ji boo demee daa fekk borom bi di joxe tont ca suratu ali imrana laaye juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun mu ne na doon ay njiit di yare ci li ngeen di jàngale ci téere bi ak ci li ngeen ciy jàng di ko jëfe bu ko defee nga gis ni bon xam jëfe bokk sa xam-xam ak ñi ci des loola rekk moo mën a def nit kilifa nga waxee que nga ni bon topp gu biir gu dëggu gu wér ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali ak tànn gu nit ki nag di tànnal boppam ndax du farata ci moom waaye mu tànn ni man li ma am danaa bokk ak nit ñi ànd ak ñoom ñuy gindeeku ci lépp lu jëm ci wàlli jaamu yàlla ak ci lépp lu jëm ci naka lañuy tërale sunu dundu àdduna lii rek moom moo mën a tax nga ni nit kii kat am na kilifteef mooy dinañu ko déglu bu waxee ñu topp waxam ndax dëppoo na ak li yonent bi sallallahu alayhi wa ali di jàngale ami auditeur le messager d'Allah La meilleure des créatures, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et on n'hérite des prophètes ni or ni argent, mais plutôt le savoir. Et celui qui hérite le savoir des prophètes aura hérité la plus grande part. Bokk boo demee di fekk yonent bi sallallahu alayhi wa ali muy wax lii lépp ci jawaamiul kalimam ya mu ni innal ulama warasatul anbiya mu ni boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman waaye nag xam ni yonent yi kenn du leen doon ay wurus wala or wala xaalis walakin al ilma lañ leen di donn mooy xam-xam fa man axazahu bi xaddin waafir koo xam ni séddoo nga xam-xam ba day séddoo nga cër ba gën a rëy ci li fi yonent yi bàyyi amis auditeurs les exigences du savoir un islam c'est d'appliquer ce que l'on sait d'enseigner ce qu'on sait aux autres et de supporter les difficultés qui jalonnent le chemin de l'enseignement, le chemin de la formation et de l'orientation des hommes, le chemin des prophètes. Ainsi, quelle que soit l'étendue des connaissances d'un individu, quels que soient les miracles qu'il puisse exécuter, marcherait-il sur les eaux volerait-il dans les airs s'il ne suit pas les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui? Alors le Coran ne le considère pas comme guide et interdit aux musulmans de le considérer comme une autorité religieuse. En d'autres termes, je dirais que suivre quelqu'un dont les paroles et les actes sont opposés est un grand péché. Suivre quelqu'un dont les paroles et les actes sont contraires aux paroles et aux actes du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est un péché grave. mbokk yi ñu gis ni xam-xam ci lislaam dafa am lu mu laaj ay mutatallabaat mooy ngay jëfe li nga xam waaye nga koy jàngale di woote jëme ci njub itam nag nga mën a dékku al aza li nga xam ni mooy ay metit ak i coono ak lor yoo xam ni moo nekk ci yoonu gindi doomu aadama yi nga xam ni mooy yoonu yonent yi mbokk yi nit lu xam-xamam yaatu yaatu nit lu mu mën a def ci ay njo jommalaate ay kéemtaan ay karamaat na nekk day naaw ci jaww ji na nekk day réer ci ndox yi na nekk day dox ci kaw ndox mi gis nga su toppul yonent bi sallallahu wa ali daa fekk alquran mu ne kii du kilifa ci li yàlla di samp kilifteef noonu lay alquran di tere itam bépp jullit mu jàppe ni kii kat moo ma war a wan yoon di ma gindi nga ne bon daal topp kenn képp koo xam ne ay jëfam ak i kàddoom wuute nga fekkaat itam ay jëfam ak i kàddoom wuute ak jëf ak kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa ali loola bàkku na ci bàkkaar yi gën a rëy yi nga xam ni dinañu ko mbugal ci àllaaxira nu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole na ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yal na nu ko defal شأنك Habibou Najjar, le martyr de la sourate Yassine, dit ceci. Suivez celui qui ne vous demande aucun salaire, celui qui n'attend rien en contrepartie de ses orientations et qui lui-même suit la bonne voie. laay ñaar fukk ak benn ci suratu yaasin danga fekk eh, shahid bu mag boobu di Habibu Najjar mu wax fa kàddu yi di firi kilifteef ci diine mu ni ittabiu bu ngeen dee topp nangeen topp man bépp waay joo xam ni laa yasalukum ajran du leen laaj benn payoor xaarul ci yenn hadiya wahum muhtaduun te moom mu ngi tege ci yoon wi mu lay wooni la ñëwal ñu jaar ci yoon wi celui donc qui suit quelqu'un qui ne s'intéresse que à ses biens à son compte bancaire et qui ne suit pas le culte et n'oriente personne vers le bien celui-là de même que celui qu'il suit finiront dans le groupe du désaveu que présente ce passage de la sourate Ibrahim qui dit tous comparaîtront devant Allah. Là, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, Hey, c'est vous que nous suivions dans le bas monde. Pouvez-vous nous préserver du châtiment d'Allah? Alors, ces fausses autorités religieuses leur diront, dommage. Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement bien guidé dans le bas monde. Ici, c'est la même chose pour nous tous, se plaindre ou endurer, car il n'y aura pas d'échappatoire pour aucun de nous. Verset 21 mbokk yi bu nekkee nit mu ngi topp koo xam ni dara yitteelu ko lu dul li na ci sa poos sa am am rek li nga ko mën a jox ci hadiya moom mi ngay topp jaamuwul yàlla moom mi ngay topp gindiwul kenn di la tegtal ci yoonu njub yow ak ka nga topp yéen ñaar ñépp dangeen di mujj ci mbooloo mii di xuloo ci kanamu borom bi subhaanahu wa mu wax moom yàlla ci suratu ibrahim wa barazu lillahi jamian ñoom ñépp dañuy taxaw ci kanamu yàlla mboolem nit ñi fa qaala duafa lillazina stakbaru ñi néewoon doole nag doon toppe wax ñi doon rëy rëy lu yëkkati seen bopp ni leen inna kunna lakum tabaan nun kat ci àdduna yéen lañu toppoon di déglu di déglu seeni ndigal fa hal antum mu'nuuna anna min azabillah min shay tey nag est-ce que mënal ngeen nu dara ci teggil nu lëf ci mbugalu yàlla gi gis qaalu foofu nag sëriñ sa ni leen law hadaana allah la hadaynaakum xam nga yéen dangeen dof rekk mais ca àdduna bu ngeen nu gisoon nu gindeeku kay tegu ci yoonu yàlla bon dañ leen di teg ci yoonu yàlla fii nag moom sawaawun alayna moo yem képp nag noo fi yem ajazina am sabarna moo xam dañuy jaaxle di jooytu ak di jàmbat wala nu muñ benn la ci nun ndax maalana min maxiis kenn ci nun du mucc ci mbugal yàlla gi suratu ibrahim laay ñaar fukk ak benn amis auditeurs sachez que ceux qui suivent des guides religieux ceux qui vouent à des hommes le respect qu'ils devraient à Dieu subhanahu wa ta'ala seront couverts de honte dans l'au-delà. Ce sont tous ceux qui obéissent à des ordres et des conseils, contraires aux ordres et aux conseils de Dieu, subhanahu Dans la sourate de la vache, il est dit, pour raconter ce qui se passe dans l'au-delà. Il y a parmi les hommes certains qui cherchent des égaux à Allah en leur vouant l'amour qu'ils devaient à Allah seul. Mais l'amour des croyants pour Allah est plus ardent et plus passionné que le leur. Et quand les égarés verront le châtiment, ils comprendront que la puissance dans sa totalité appartient à Allah et que les souffrances que Dieu inflige aux injustes sont insoutenables. Verset 165 mbokk yi tedd yi bu ñu gisee ñi nga xam ni ñu ngi topp ay nit ci topp bu àndul ak settantal ñu nangul leen wommatu comme wommatu gi ñu war womatul yàlla subhaanahu wa taala da fekk ñooñu ñépp buñ tegawul ci yoon gàcce moo leen di muur bis penc nag mooy ñi nga xam ni ñi dinañu déglu di topp ay ndigal yu wuute ak ndigalu yàlla subhanahu wa taala di topp ay ndénkaane yu wuute ak ndénkaane yàlla subhanahu wa taala mu ngay wax suratu baqara pour melal la ñi mu ni minan naasi man yattaxisu min am andaadan ci nit ñi am na ci ñoo xam ni dañuy wutal yàlla ndend wutal ka ay nawle yuhibbunahum ka hubbillah gis nga mu ni cofeel gi ñu waroon am ci yàlla cofeel gu tol noonu la ñu jox ñooña wallazina amanu ashaddu hubban lillah moo ne ñi gëm yàlla seen cofeel gi ñu am ci yàlla moo gën a rëy fuuf cofeelu keneen ku topp leneen lu dul yàlla walaw yara alladina zalamu gis nga gaañoo ñu tooñ seen bopp ci jël seen cofeelu yàlla jox ko keneen bis bu ñu gisee boo leen gisee is yarawna al azab bu ñu nee jàkk ci mbugalu yàlla gi foofa nag anna al quwata lillahi jamian dañuy gis ni moo ne ndekete kàttan daal doole ak man-man yàlla rekk moo ko yor ba mu jeex takk wa anna allaha shadidul azab ñu gis nag ni ndekete yàlla daal mbugalam foo ko ci metti ak tar ëpp nag laaye téeméer ak juróom benn fukk ak juróom suratul baqara dans cette situation insoutenable tous les faux guides religieux qui profitaient de la naïveté d'autrui dans ce bas monde pour vivre eux dans la fainéantise et le luxe matériel, toutes ces fausses autorités religieuses regretteront leurs actes mbokk yi gis nga bu tolloo fii ci ñépp jàkkarloo ak mbugal yi foofa nag ñi ne woon ñépp kilifa lañu ci diine te seen kilifteef baaxul ñi doon nax nit ñi rekk di dund ci seen kaw di noos ci seen kaw ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp ci rëccu la ñuy mujj c'est ce que disent les versets 166 et 167 de la même sourate Al-Baqarah la vache Dieu est dit quand à la vue du châtiment ceux qui suivaient à tort désavoueront ceux qui les suivaient quand tous leurs liens seront rompus, alors ceux qui suivaient leur diront, Ah, que c'est dommage. Si nous pouvions retourner sur terre, nous vous désavouerions comme vous nous désavouez en ce jour. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur montrera leurs actes qui ne susciteront que le remords et le désespoir pour eux. Mais jamais ils ne sortiront du feu de l'enfer mbokk yi yéen ñu tànn ñi baaxoo ànd ak nun ci bis bu tedd bi fii ci rajo Sénégal international boo gisee laaye téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ak laaye ji ca topp ci suratu baqara nga jàngat ka di nga fekk yàlla subhaanahu wa di la won ni ku topp kilifa gu matul kilifa ci rëccu ngay dund ci àdduna mais doo ko yëg waaye ci rëccu ngay mujj ci àllaaxira mu ni istabara alladina tabaau min allazina tubiu mu ne gis nga ña ñu doon topp bu ñu gisee mbugalu yàlla gi dañuy dañ di weddi ña leen doon topp ni topp leen ñu woon ndax foofu responsabilité la wa raawul azab gis nañu mbugal gi wa taqattaat bihimul asbaab la leen takke woon ci àdduna lépp ci intérêt jeex na fii kenn mënalu fi kenn dara wa qaala allazina tabaau al toppee nag taalibe ye ni leen law anna lana karra fa natabarraa minhum kama tabarra'u minna gis nga bu fekkonte ni yàlla wërsëgal na nu delluwaat àdduna giñ la ni nii ngeen nu weddee dañ noona lan leen di weddee ba set wecc dañtalu ci yéen kadalika yurihim llahu amalahum xasaraat gis nga ni yàlla di leen wane seeni jëf lépp mujj nekk ay réccu wa ma hum bi xaarijina min an naar ànd ak réccu gi kat du tax ñu jéggal leen yàlla mu ne du ñu génn mukk mukk biir safara suratu baqara lu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole nu ci ñiy ràññee xam kan moo mat kilifa te doy kilifa mu wërsëgal nu bokk ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal ya rasulallah amis auditeurs qui nous accompagnaient en ce jour béni sur Radio Sénégal International autour du thème de la notion d'autorité religieuse. Ce qu'il nous faut retenir de notre séance d'aujourd'hui, c'est que le musulman, en réalité, ne suit que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est-à-dire qu'il ne doit suivre que le Coran et la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et tous ceux qui incarnent ce Coran et cette sunna, tous ceux qui enseignent ce Coran et cette sunna entrent dans cette notion d'être suivi. Tout le reste, amis auditeurs, n'est que du compagnonnage comme on a appelé d'ailleurs les contemporains et les croyants de la première heure les compagnons du prophète Muhammad paix et salut sur lui mbokk yi nu war a jàpp ci sunu njataayu tey ni jullit yonent bi alayhi salaam rek lay topp bon lu nekk ci topp googu mu topp la lu ko génn mu teg la fa ni ñu tuddee woon yu njëkk ña bi mooy ñi ànd ak yonent bi alayhi salaam nu yàlla dégg ak topp yomb nag yàlla ko def Très chers amis auditeurs, je vous ai dit tout le reste, c'est-à-dire tout autre qu'on suit, on ne le suit que dans le cadre du compagnonnage. Aucun de nous ne doit alors suivre un guide religieux, mais suivre la voie, la voie tracée par Dieu subhanahu wa ta'ala en compagnie de ce guide religieux ou sous l'orientation de ce guide religieux mbokk yi wax naa ni la àndandoo rekk moo fi war a nekk ci dundu àdduna bi bu génnee yonent bi sallallahu alayhi wa ali àndandoo rekk kenn képp koy jël ci wàllu kilifteef ci diine dangeen di ànd tege ci yoon wi yàlla rëdd nga ànd ak moom walla nga topp ci gannaawam mu lay wommat di la teg di la won yoon wi Dieu subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qui est plus pieux que celui qui se soumet totalement à Allah en se conformant à la loi révélée et en suivant la voie d'Abraham l'orthodoxe. Et Allah a pris Abraham comme ami. Vous soulignerez non pas qui a pris Abraham mais qui a la voie, la voie d'Abraham. On suit la voie d'Abraham, mais on ne suit pas Abraham. mbokk boo demee da ngay fekk alquran di la wax ni yoon wi ngay topp toppoo kenn mu ne wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah mu ne kan moo gën a rafet diine kan moo gën a nekk ci kaw ihsaan ki nga xam ni jébbalu na ci yàlla lu mu ko sant mu def lu mu ko tere mu bàyyi wa huwa muhsin te mu ngay farlu di def na mu gën a rafete wattabiu millata ibrahima anifan topp leen yoonu ibrahim yoon woowu nag jàng na bépp xeeti mbon ak bépp xeeti bokkaale wattaxaza allahu ibrahima xalilan loolu moo tax yàlla jël Ibrahima def ko xariti benn bakkanam ci waxi ni doomu aadama mbokk yi boo xoolee laay ji waxula ittabiu Ibrahima de waxul topp leen Ibrahima dafa ni ittabiu millata Ibrahim topp leen xàllu Ibrahima yoon wi bon ci kaw yoon wi nga dox nga nekk di dox kilifa diine bi nga ànd ak moom ci yoon wi rek mooy laaye téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu wax fale mu ni di Moi, mon Seigneur m'a guidé vers une voie droite, une religion parfaite, la voie d'Abraham, l'homme exclusivement soumis à Allah et qui n'a jamais fait partie des associateurs. Sourate Le Bétail, verset 161. Amis auditeurs, ainsi donc c'est la voie qu'on suit, mais aucune autre personne. Ok laaya suratul anaam moom it dafa ne qul innani hadaani rabbi ila siratin mustaqim wax leen nga ni man de sama boroom teg na ma ci yoon wu ne xooj ci jub yoon wi diinan qayiman diine la ju jub ju maandu ju sell ju tedd millata ibrahima xanifan yoon wa ibrahima jaaroon muy yoonu xunafaay ñi jébbal seen lépp yàlla wa ma kaana min al moom ibrahima masula bokk ci ñiy bokkaale moo xam bokkaale bu rëy moo xam ngistal laaye téeméer ak juróom benn fukk ak benn amis auditeurs les deux versets suivants décrivent la voie d'Abraham mais quelle est cette voie qu'on Dieu dit, dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma, mon mode de vie et ma façon de mourir appartiennent à Dieu, le Seigneur des univers qui n'a nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me, à me soumettre. Sourate le bétail, verset 162. 163. Ainsi, amis auditeur le musulman suit la voie, comme il le disait dans la Fatiha, montre-moi la voix Il ne suit aucune personne. C'est ainsi seulement que quand le guide religieux dévira de la voie, cessera de prier, quand il boira de l'alcool, quand il aura plus de quatre épouses, le musulman le laissera à son malheureux sort et continuera sans broncher sur la voie, sans se retourner. Il poursuivra le chemin qui le rapproche d'Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut. mbokk yi li ñu wax lépp ci alquran li mu nuy jàngal rek mooy lañu waxoon ca Faatiya wannu yoon wi yoon wi jub yoonu xéewal yi bon nga yëg ni jullit yoon wi la topp toppul kenn bala kenn di xam ni jullit bi nit ki la topp wala yoon wi la topp ka ngay topp jàdd yoon xam nga boo toppee nit ba yàgg mu bàyyi julli wala nga topp ko ba yàgg mu bàyyi woor wala nga topp ko ba yàgg muy naan sàngara wala nga topp ko ba yàgg càmbar ko fekk am na junni soxna ëpp na ñeenti soxna yow looy def mooy bàyyi ko ca réeram soo ko mënul gindi yow nga continuer wéy ci yoon wi yàlla rëdd doo ko gestu sa yoon du ne ca moom yow nga tege rek ci siraatul mustaqim te mooy yoon wi nga xam ni moo lay jegeel sa borom yoon wi nga xam ne ci ngay amee bépp may ci dundu àdduna di ko am ci dundu àllaaxira ami auditeurs retenons pour finir cette parole de Luqman qui dit au verset 15 de la sourate qui porte son nom à son fils. Si tes deux parents te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors refuse catégoriquement. Mais comporte-toi de façon convenable dans tes responsabilités filiales et suis la voie de celui qui se tourne résolument vers moi. Voilà l'enseignement de l'islam. Les plus, les plus prioritaires à être suivis, ce sont les parents. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala te dit que même si tes parents dévient, tu ne dois pas les suivre dans leur déviance, mais toi tu restes dans la voie droite en respectant non plus toutes tes responsabilités d'homme. vis-à-vis boo gisee alquran li mu jàngale bon da ngay wax ni ci diine lislaam kilifteef mooy nga tege ci yoon rek xam yoon wi di ko jëfe xam yoon wi di ko jëfe te di tegtale ma ngay wax mu ne in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma mu ne gis nga même sa ñaari way jur nga xam ni ñoo gën a yey ci déggal leen ci lu ne bu ñu jekkoon ba yàgg jéem la gëtën ci nga wàcc yoon jéem la gëtën ci nga bokkaale ma man yàlla ak loo xam ni gisoo ma santaane ko falaa tutixuma mu ne lànkal bu leen ca topp buñ la yónnee sàngara bañal buñ la nee jaamul xëram lànkal lépp luñ la digal te ma tere ko yàlla mu ni bañal ba tëdd ca naaju waaye nag wa saaxibhuma fi dunia maarufan waaye nanga def kem kàttan ci lépp lu jëm sa digganteeg ñoom ci wàllu àdduna bi lay sa wareef def ca na mu gën a rafete na mu gën a dëppoo ak sama yoon wattabi sabila man anaba ilay te nag nga xool yoonu gaaye jëm ca man man anaba ilay mooy yonent bi alayhi salaam bon toppal yoonu kii nga xam ni ci man la jëm te nga bàyyi say wayjur ñu topp yoon yooni cheytaan ilayya marjiukum jamian fa unabbiukum bima kuntum taamaluun yéen ñépp fi man ngeen di faresi danaa àtte seen diggante kenn ku ne ma wax la ci li nga nekkoon lum suratu luqmaan laaye fukk ak juróom bon mbokk yi ñu jàpp bu baax ni li ñuy topp ci lislaam mooy yoon wi ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale képp ku ci sax di ko jàngale ñuy topp ca la ngay jàngale bis boo ko jàddee bàyyi ka ñu wéy continuer ca yoon wa bàyyi la nga jàdd ci saw ñal li fekk jullit bi yëgul loola rekk nekkagul ci kaw yoon bu fekkee fu waa ji jàdd jëm nga jàdd topp ca nekkuloo ci yoon wi waaye nag dogul ni ku topp yoon wi nga topp ka ku wàcc yoon wi nga bàyyi ka te topp yoon wi nu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci ñi dégg di mën a topp loola yomb nag yàlla na nu ko defal anta ya mahmud min suyufillah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 wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن بالقرآن هاديا لله يا رسول الله